se torne à des boobu la ñu asalaamaaleykum ami cher internet yi ñi safoo di seetaan les patriotes TV dal leen jàmm ci xibaar lii gën a fës ci xibaar yi gannaaw ki nga xamante ni moom moo di Pape Alé Niang gannaaw nag buñ ko daanee li nga xamante ne moom moo di ab weeru kaso gannaaw bu mu fa génnee ba am fa benn feebar boo xamante ne mayatu ko mu nekk ci kaso bi gannaaw loolee lañ ko defal li nga xam ne moo di ab liberté provisoire ki nga xamante ne moom moo di Pape Alé ñaa nag dafa war a dem fële sa euh, tuggal ndiir lan ngir ceytu li nga xamante ni moo di ay wér gi yarama mais nag li nga xamante ne moom moo di euh, ay avocat def nañ la tout pour ñu bàyyi ko mu dem seeti ay wér gi yargam mais nag ñi nga xamante ne moom moo di gars yi dañoo bañ lank nekkat Pape Alé Niang amul droit génn li nga xamante ni moom moo di dëkk bi parce que tamit dafa nekk liberté provisoire te amul benn yoon amul benn droit ne day jéem a génn li nga xamante ni moom moo di fii si Sénégal ndax loole mënul andi ay jafe-jafe kii di journaliste di peuple di Pape Alé